mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal C3S moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbindu bi dina door benn ci weeru janvier 2021 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2021 li bees bi nag mooy concours zonal bi ñuy am amal jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyule ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di sant sunu borom bu baax a baax si euh, ci coobareem ñu teew si jotaay bi mu nekk jotaayu ngëneel jotaayu cant ak jotaayu yokkute ci zahir ak ci baatin man sax dama tànnoon rek ñaan naa ko sëñ Amidun moom ma ko mayul waaye dama tànnoon rek toog di déglu ndax euh, sunu borom dafa dogal su may kilifa rek laa fekk mm-hmm. si côté yëpp mm-hmm. Euh, di njëkkee koo xamante ni suñu borom dafa dogal suñu borom boole maag moom danaka léegi mu def plus de quinze ans muy Serigne Omar Bamba nekk si jotaay bi dama koy tooñ yenn saa yi ne ko ci moom laa jànge contradiction waaw mu nàmpatal ma ci bu baax am générosité ba tey ji bàyyiwul nag waaw ba bërki démb rek woo na ma ne ma nangam ak nangam ak nangam bu ko defeeti nii defee ko nii. Mm-hmm. barki démb rek moo si mujj. Mm-hmm. kon sëñ Omar euh, ñoo ngi lay ñaanal baax suñu boroom yàggal la fi. amiin amiin. Ceddo Murit Saadix tamit kazalika noonu la mel ci man. Mm-hmm. sëñ Abdou bu so euh, sëñ Jibril Ndaw moom tamit euh, jokkoon nañ fi une fois wala deux fois mu am générosité bu mag moom tamit waaye ma yàgg ko suivre ci ay documentaire ma gis yitte bi mu ciy def. ak Serigne Ndiaga Seck moom wax na cofeel goo xamante ni am na ko su ñun waaye boobu it lañu am ci moom hmm. sëñ bu Mbay moom dama daan toog fële ca caajaay boobu maa ngi jàng primaire waaw Buuba Nduur daf may tooñ souvent ne ma foo dem tudd fa caajaay eh, xam naa dama leen yéene yiw rek moo tax hmm, eh, waaye eh, dama daan toog di ko seetaan moom ak xaalisek hmm, ma leen di ñeeñee gu doy waar waaw ndax tawféex bi ma gisoon ñu am di liggéeyal Serigne Touba ci niveau boobu. Mm-hmm. boobu mësuma xalaat sax ne dinaa dem ba nekk journaliste. mosuma mm-hmm. ko xalaat. waaye daal yéene woon naa ko. Mm-hmm. bëggoon naa ko it. waaye occasion boobu moo tax ba ba ñëw fekk ko RTS. mu téye sama loxo nag wax dëgg moom ak ku ñuy wax sëñ Layra Diop nekk États-Unis ñoom ñoo doon ñu ñoo doon ma corrigeel su may papier. wax na wax naa ne fu mu gis ñuy wax ci sëñ Touba wala njabootam dina dem defi portrait bi. Mhm. waaye ba ma fa ñëwee tàmbali dafa bàyyi woon loolu jox ma ko. Mhm. di ma ci tàggat nag di ma ci encadré. Mhm. ngir ma am goût ci recherche. donc sëñ Abibu tamit ameel nañ la njukkal ameel nañ la àllarba it. xam naa ñëwagul waaye ameel nañ la ko. donc di gërëm kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ fekk ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam. sëriñ Abdou Khadre euh, moom tamit majalis moom suma xarit la suma wëllëre la moom keroog dama egg Conakry ma ne ko bi may wàcc ci avion bi dama wàcc rek sama xel dem ci Serigne Touba moom laa njëkk a xalaat wallahi lazim xam naa tawféex bi ma ci am ndax bi ma nekkee ci avion bi dem wakkaana xaqan lay jàng moom mi daal di may wax ñaan gi sëriñ bi ñaanoon bi mu agsee Conakry daanaka Conakry la ma fa nekk yëpp sëriñ bi laay teewlu <laughs> waaw ndax xam euh, Euh, njàmbaarteem ak euh, fitam ak euh, doxalante bi nga xam doxalante woon na ko ak sunu borom ngir li mu namm liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di gërëm bu baax nag sëriñ Gana Messere ak sëriñ Abdoulaye Diop Bichri ñoom bokk ak ñoom jotaay rek tawféex la wax dëgg ndax jotaayu ngëneel la Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax mm-hmm. fépp fu ñuy tudd gaa yu baax yi mm-hmm. sunu borom daf fay wàcce yërmandeem kon fépp fu ngeen nekk da ngeen di jox opportunité ña fa nekk ngir sunu borom wàcc ci ñoom yërmande ku lay defal loolu nag wax dëgg fay ko dina jafe donc di gërëm sëñ Cheikh Diop Mbaye bu baax ci taxawaayam di gërëm ñëpp ñu ci bëri xam naa leen xàmme naa leen tamit question bi nga laaj nag xam naa ne ñemewu ma cee tontu ndax ay borom xam-xam ñoo fi nekk <laughs> li may wax rek mooy màggalu Tuubaa gi ñu jógee sëñ euh, Muntaxa Bachir di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi wéral ko projet yi mu am yépp sunu borom defal ko ci tawféex damay wax ne dafa indi réponse civilisationnelle te ci ci ci ci sëriñ Touba la ko jële ndax boo xoolee tey jii ba li ñu sonal ci guddi yi ñu toll. ba débat bi nga xamante ni moom moo def fi mu ne nii euh, moo moo sonal Sénégal. mooy ndax stratégie bi ñu jëloon ci xeex Covid bi ndax baax na wala baaxul. ñu ci bëri ne dañoo roy rek tubaab yi. bu ñu nee confinement ñu ne confinement bu ñu nee état ñu ne état d'urgence. bu ñu nee nangam ba ba ci distanciation sociale bi ñu doon wax. ñun dañu wax ne loolu dëppoowul ak sunu aada ak sunu cosaan. ndax distanciation sociale soo ko waxee ay tubaab mën naa bañ a sonn ci ñoom mën nañoo bañ a sonn ndax tàmmuñu jaxasoo. bu métti ndax individualisme à l'état pur moom moo fa am. waaye bu fekkee ne da nga ñëw fii nga xamante ni daanaka lépp dañ koy bokk. taqaloo leen bu leen jegante ñu ne est-ce que kon concept bi bi muy ñëw ñun waruñu ko woon a xalaat ba def ci li nga xamante ni moom moo dëppoo ñun ak suñu dund loolu la sëñ mun Muntaxa def. ak ngëm gu mat sëkk. ak taxawaay bu mat sëkk. daal ne stratégie bii ngeen jël. ñun jàpp ñu ne boobu moo gën. te jamono bu nekk nag sauver na l'essentiel. jamono bu nekk. bi ñu eggee ci tëj jàkka yi gis nga na mu doxale bi ñu eggee ci màggal gi ak tout sa que cela représente gis nga it na nga xamante ni noonu la ci taxawee beneen euh, solution beneen kii bi nga xamante ni indi na ko ci approche bi ci biir màggal gi ñu waxtaan ci lu bari bokk na ci université bi nga xamante ni moom moo ngi koy moo ngi koy moo ngi koy moo ngi koy taxawal fi mu ne ndax loolu dina dina dafay expliquer jotaay bi ndax jotaay bi réponse la tamit ci difficulté bi ñu am léegi di ci di waxtaan ndax les technologie de l'information et de la communication ku ku gars yi xam lool moom moo ko bind muy Dominique Volton boroom xam-xam la dafa wax ne léegi technologie de l'information dafa wax dafa bind benn livre tudde ko McLuhan ne répond plus McLuhan moom mooy chercheur canadien boobu nga xamante ni dafa waxoon ne léegi comme technologie de l'information et de la communication am na àdduna mhm. bi dafay nekk village planétaire léegi daal lu xewandoo ñëpp ko yëgandoo ñëpp dinañ gën a jëflante dinañ gën a saafonte Dominique Vulton toogaat Volton toogaat lu yàgg bind beneen téere daal di bind McLuhan ne répond plus ñu ne ko lan moo tax nga bind téere bi mu ne ndax bi technologie yi bare dafa gis ne nit ñi sax léegi dinañ toog ci jotaay man ak sëñ bu mën nañoo joxante rendez bu dem ci restaurant ba mm-hmm. waaye bu ñu eggee ci restaurant ba day nekk ci ma nekk sama téléphone ba du ñu waxtaan mm-hmm. donc instance de discussion yi ak de dialogue yi dañuy manqué lu bari loolu nag su amee yéen moom ngeen recréer nii loolu tamit beneen réponse la boo xamante ni mhm. cela veut dire que am na nécessité mhm. di waxtaane li nga xamante ni moom la ñu am mhm. sëriñ Serigne nekk ci koo xamante ni ni nga ko waxee wax dëgg mën naa defar suñuy guddi ak suñuy bëccëg defar suñu tey ak suñu ëllëg ci lépp li nga xamante ni indi na ko ci kaw suuf te sunu borom subhaanahu wa taala daal di ko koy joxoon ngir mu ñëw liggéeye ko ci par rapport ak thème bi muy kenn du sëriñ Touba sëñ Cheikh Mbacké euh, Gaynde Fatma da daan tukki lu bari tukki ba ñëw ci benn tukkeem sëñ Fallou daal ne ko Ahmadou xanaa sunu waa ji de gisoo fenn ku mel moom sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ne ko Mbacke gisuma fenn ku mel ni yow. gisuma fenn ku yow. waaw sëñ da ne ko. Ahmadou xanaa sunu waa ji de gisoo fenn ku mel ni moom ndax tukki yi bari na. Mhm. mu ne ko waaw Mbacke gisuñu fenn ku mel ni yow. mooy mooy lii sëñ Gana doon wax ne hors série la. hors série <laughs> wala hors classe <laughs> waaw donc loolu nekk damay dañ taw feex boo xamante ni. Mhm. Euh, sunu borom defal nañu ko. Mhm. bu fekkee nag sunu jëmm yi nga xamante ni euh, il faut que ñu taxaw ci. Mhm. xam kenn ku ci nekk da ngay xam sa bopp. xam lii la sunu borom defal. te abreuvoir bi ñu am mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. dëgg la. sunu borom seede ne ne keroog bi ma demee bi ma njëkkee wàcc Maroc. dama ne du fi génn tey te ziyaari wu ma Cheikh Ahmed Tidiane Chérif te Serigne Touba moo tax ma ziyaari ko keroog ba ma demee ca barab ba sindii di laa fa jàng te moom mii moo ñu bëggloo nitu yàlla yi moom moo ñu bëgguloo lu baax moom moo ñu tamit bëgguloo suñu réew bëgguloo ñu suñu continent waaye moo taxit ñu bëgg am njëriñ ci kaw suuf l'ambition d'être utile ndax pour man ci ambition la yem te li ñuy waxtaane nii yëpp dafay dellu si ci le sens de la commémoration fàttaliku ban njëriñ la am ak ban impact la mën a am ci sunu quotidien ba dimbali ñu ci ñaar bala may ñëw ci ñaar yi damay wax ci li ma buggoon wax léegi te Cheikh Samba Diarra Mbaye bi sëñ Njaga doon tudd léegi man moo ma ci dimbali ndax xëy na li tax ñu woo ñu fii tey feeñ nañu sunu borom defal nañu tawféex ba ñu feeñ ci liggéeyu Serigne Touba waaye ñun ñoo ciy defaroo ndax Cheikh Samba Diarra bay dafa wax ne bu leen ma yéem yéem leen ko moom du man maay wax moom mooy kii di wax waxande laa wuñ tëji wax buñ ma tëjee may làmmiñam donc ku nekk nag da ngay xam sa bopp mhm. parce que yow ku nekk boo wéeteeg sa bopp nga déglu sa bopp mhm. di xam li nga mën ak li nga mënul mhm. say force ak say faiblesse mhm. ak say impair mhm. ak sa matadi nga gis li ngay wax nuru loo xamante ni dafay am impact bu positif mel ni day defare mel ni am na leer gu ci nekk loolu da ngay xam ne du yow dafay da ngay xam ne du yow léegi nag kam doon da ngay am ak moom relation boo xamante ni mooy cant ak njukkal delloo njukkal ñaar yi nga xamante ni jàpp naa ne commémoration daf ñu ciy dimbali te muy dellu ci projet de société bu Serigne Touba bu fekkee ne ci solution la ñuy wax mooy daf ñuy permettre ñu régler ñaar yoo xamante ni bokk na ci li gën a sonal pénc mi walla espace public mooy la problématique du vivre ensemble nan la ñuy def ba wuute ay xalaat wuute sax ay pas-pasu diine wuute ngëm te mën a seq jotaay ba sauver l'essentiel loolu sëriñ bi daf ñu ci dimbali jàngal ñu ci lu bari euh, sëñ Bachirou indi na ko fu bari ci Minanul baaxel Xadim egg na sax wax ne kilifay tubaab yi dem na ba bu daan tukki sëriñ bi lay dénk waa këram ci koo xamante ni dañu wax ne dafa nekk résidence surveillée mais mais li nga xamante ni moom moo li nga xamante ni moom moo doy waar li nga xamante ni moom moo doy foofu mooy mooy moom état d'esprit am lu yéeme la te lu mat a jàngale la mooy su nit nekkee fii ci kaw suuf nekk ci ay xat-xat rek. ñu koy bundu ci lieu de travail am ak yooyu moo tax sëñ Abibu mi buntu RTS la ma njëkk a wax ne. an naf wa duru min ar-rahman buntu RTS la ma ko njëkk a waxee. <laughs> fekk boobu ñu taxaw di waxtaan mitit yi. ak jamono bi ni mu tëddee. waaye fi mu ne da ngay gis ku nekk ci liggéeyukaayam. nee na yee dañ ko fay bundu xataal dootul may kenn jàmm. Mm-hmm. ku nekk mu njortal la lu ñaaw ba mu yàq sa digganteeg nit ñi donc vivre ensemble bi yow yaa ngi koy yàq. Mm-hmm. wala nga nekk ak nit ci ci jàpp ne am na ci loo xamante ni yéenewu la ko wala bëggu la wala jàpp nga ne mën na laa lor. Mhm. ba tax nga def ko noonu sëriñ bi moo ñu indil ndimbal ci loolu yëpp. Mhm. waaw ba nga xamante ni mhm. moom ci boppam lim lay jàngal mooy jamono bu nekk nan ngay def bay jëriñ nit ki te doo ko lor nan ngay def même dans une relation ba nga nekk victime bi mu gënal la nga nekk bourreau bi leneen état d'esprit bi ma doon wax mooy lu mu nekk ci xat-xati mosul jàppe boppam prisonnier <laughs> danaan sama tukki bi rek. Mm-hmm. waaw alors que ñële ñoo ngi jàppoon ne dafa nekk dans les lien de la détention mm-hmm. donc nan la maintenir wala nan la amee taw feex boobu nga xamante ni. Mm-hmm. ba ci fiñ ko téyee foofu la gën a amee liberté ba gën a wéyal liggéeyam. loolu tamit nekk jàngat bu doy waar. leneen li mooy problématique du vivre ensemble mën nañ ci wax ba suba li tax ma koy waxtaanee mooy. dafa yëngal. lu baax a baax a baax consensus yi ñuy am yenn saa yi ci biir pénc mi beneen bi mooy la crise identitaire mooy ni ñu nit nit ki mën a réeree boppam ba daanu ci li Cheikh Hamidou Kane tudde l'aventure ambiguë mooy nekkatoo yàpp nekkatoo jën li nga nekkoon fondamentalement bàyyi nga ko li nga bëgg a doon mënoo ko doon waaw li nga mën a doon mënoo ko doon sëriñ bi nag daf ñuy dimbali ci jamono bu nekk mu lay fàttali yow Jibril Fall yow yaay kan fan nga war a teg sa tànk fan nga warul teg sa tànk lan nga war a def lan moo yell ci yow lan moo yellul ci yow jamono bu nekk mu nekk épée de Damoclès tawfeex boobu la nekk ci ñun donc li ma bëgg a wax rek mooy yitte bi nga xamante ni am nañ ko tey ndax moom yitte e effectivement rabbi asxaabaka bil himmati moom yitte rek mooy mooy fondement mbiram waaw itte ju mat sëkk. dëgg la léegi nag damay wax ne himma boobu. Mhm. xit ma rek. Mhm. moo koy moo koy conforté. Mhm. waaye da nga koy teg nag ci pas-pas bu sell. après nga am pas pasteef bu dëgër. dëgg la mbiru sëñ Touba loolu la. te loolu buñ ci eggoon ñu waxtaanee Babul Mouridine bi nga xamante ni nag. man suma waa kër suma njaboot yëpp foofu la ñu bokk. donc du ma jeexal nag te te santuma. Euh, góor gi nga xamante ni man moo ma yar moom lañ ma tuddee muy sama maam. nekkoon jàmbaar nekkoon Baye Fall xam naa waa jaajaa yi ñuy seetaan yëpp dinañ ko seede. nekkoon nit ku baax lépp mu jox ko Serigne Touba wax na ma ne bi mu demee ci toju xeer bu njëkk ba. ndoka nee na ma bi mu ñib def na fa ñetti weer. Mhm. changé wul yére. mais nee na ma bi mu ñibbisee. nee na ma mag ñi mu fekkoon caajaay bi mu dellu see nga xam mënuñu woon a dem ndax mage yére yi dañ ko xooj di ko naan mm-hmm. <laughs> ndeysaan waaw yére yi mu yóbbu woon ndeysaan waaw wax na ma it wax na ma it lal yi Chérif Assane njëkk a am Kawsara mhm. nee na ma moom moo ko yennoo caajaay yóbbul ko ko Kawsara mhm. kon tamit li sëñ am bu doon wax mhm. amuñu pexe lii mooy sunu domaine de définition ci lañ ñaan yàlla dund ci lañ ñaan yàlla dee ndax sëñ mun taxaa dafa wax lu am solo pour dellu ci thème débat bi dafa wax fii ci Masalik bi projet bi boobu jeexagul mu wax ne keroog sax wax na ko ba tuur ay xéwal mu wax ne sëriñ bi fi ko sunu borom jaarale ba mu agsi ci moom moo tax muy kenn loolu nag dinaa ko wax waaye du yàq dara noonu la ko waxee te loolu li tax mu wax ko mooy boo amee perception boobu kenn ku ci nekk la mu am di ko ko yéene te bu aju woon ci yow it nga yokk ko dëgg la sëñ Abib wax na ne moom Gabon la gëme ne Sëriñ kenn la mhm. waaye man keroog ba may dem sar saara ngiro ngiro bu métti <laughs> lu ne daj naa ko fa. ci laa xam ne daal. kenn du moom kenn du moom. dëgg la donc di leen gërëm bu baax di leen sant jërëjëf di ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu. amiin amiin amiin amiin rus ñu it. amiin amiin bàyyil ñu fi Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir. amiin amiin amiin ba mu yàgg lool. ba li nga xamante ni naal na ko. Hmm. te mu am solo lool ndax dafa wax ne dafa bëgg université bi bu paree. Hmm. fii cent cinquante années. Hmm. mu ne imam Malik Shafi Ahmad Ibn Hanbal ak Abu Hanifa bu ñu leen tuddee ñu am seen seex ci Touba. ambition bu rëy la waaye ambition boobu da koo donn ca maamam dëgg la soxna jaara ba mu ganee àdduna daa di ñu koy waaj yóbbu kër sëñ soxna euh, sëñ Mamour Anta Sali la mu wax dafa ambition foofu la yam dafa wax ne jigéen ñi bind les plus belles pages de l'histoire de l'islam su ma bokkoon ak moom boroom kër dinaa nekk dans les dispositions compétir loyalement maanaam du ñu ma gën doom. Mhm. waaw te gis nga xoolal distance bi géographique. Mhm. xoolal distance bi. Mhm. ci soriwaay ci wàllu dëkk ak dëkk. mais xoolal ci jamono. ni ñu soree temps ak espace. mu am ambition boobu donc sëñ Touba tamit. ambition la def ci ñun. donc te ambition boobu fi mu war a feeñ. mooy que ñun ñëpp ñu góor góorgóorlu. Euh, ba Sénégal. ak Afrique. jouer rôle bi mu war a jouer. ci àdduna ndax moom tamit. damay wax keroog xale yi ci université bi ñuy célébrer Thomas Sankara. ma ne leen Cheikh Ahmadou Bamba. moom mooy le précurseur mhm. moom mooy le franc tireur mhm. par rapport ak ñoom Thomas Sankara moom moo wane yoon mhm. te euh, sëñ Abdoulaye Diop Bichri wax na ko foofu laay daaneele opposé wul violence ak non violence ci ci njàngaleem dafa opposé violence daal ne lenn rek moo mën a transformer mbir moomu ba mu nekk yiw ak tawféex mooy xam-xam ak ragal yàlla dëgg la